Soriba Kouyaté gëddën la gis lool lool lool fo newoon waaw tonton gannaaw bu ma sante yàlla di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu sunu kilifa sunu xalif muy tonton yu suma jigéen maa ngi fii nekk ci liggéey bi di ci góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax ah alors yaa ngi toog fii gëddën la dëgg album bu nga génnoon Esperanza depuis boobu ba tey lan nga avancé fan nga toll tey nous def nañu album Esperanza yàlla def nit sénégalais bu baax le chemin pour trouver le chemin di liggéey bu baax baax dem nañ ci musique bu baax wax dëgg donc surtout diversité harmoniquement ak techniquement voilà alors lan nga denc actuellement dafa am lu nga denc wala yaa ngi yaa ngi continuer di liggéey waaw actuellement nii ya, denc naa lu bëri donc liggéey nañu lu bëri surtout mi ah, ngi ci kër gi waaw maa ngi ak kora bi tamit maa ngi ci liggéey bu baax a baax côté afrobeat côté kora trio jazz bi ak manding bi reggae parce que maa ngi liggéey sax ci côté rap bi aussi tamit pour jeexal musique bi mais di def lu tout pour mën a ëmb musique. musique alors temps yi kan mooy sa maison de production. waaw aw ma nag maison de production ci la loolu laay nekk di recherche ni pour ku ñu donc pour ñu liggéey donc parce que tubaab dafa ne le talent ne suffit pas si on veut du sang dans les artères de l'industrie musicale il faut que innover donc on koo xam tamit donc partenaire bu ñu liggéeyal ci bu baax. alors Soriba quand on dit Soriba Kouyaté mu am ku ñuy fàttaliku Soriba Kouyaté ak Toumani alors est-ce que da ngeen bokk. waaw Toumani dañu bokk suma papa la suma cousin yu papa la donc euh, Sidiki bu mag papa yi Toumani ak suma maam ñoo bokk benn yaay donc ñoo jugandoo fii dem Gambie jugee Gambie dem Mali pour jàngi woon benn bu Kora bi naan Kayra sama maam ñibbi si bàyyi ba Sidiki ci la fondé foofu une famille. donc première kora bi tumani tëgg sama maam moo ko jox suma turandoo jangal ko ko donc euh, mu am ci Sidiki man tamit suma papa am ma ci donc j'étais au Mali avec Sidiki ñu def ay échange kora donc nekkona sax ci sen INA bi foofu moy sen maison sen maison de la culture bi après ci laa ñibbisee Sénégal ñu def album Esperanza. donc à très bientôt. à très bientôt. merci.